relation ak Tawfekh Mbaye lan la ba saa bu wootee même bu fekkee màggal la te xam nañ na jot yombul chaque jour nga koy teewee nu mu demee. relation bu naturel la l' essentiel dañoo bokk dénominateur commun muy Serigne Saliou ñoo bokk fi ñu teen bi ñuy rootee ñoo tolloo ay at bokk même génération bokk ay fans kon forcément su ma xewlee ku fa séntu taw feex danga nga ko fa gis waaye moom it su xewlee ku ma fa séntu da ma gis moo tax teewaay bi lu naturel la macha allah. am na solo bu baax a baax alors tey boo amoon tamit leneen loo koy yokk muy conseil wala lépp loo xam ne xalaat bu baax la ngir ci carrière am étant jàngkat comme moom lan lay doon. conseil bi lenn la rek mooy li may conseil sama bopp mooy muy déglu képp ku nga xamante ni da koy wax dëgg te bañ di déglu ñi nga xamante ni jege ko rek la duñ ko wax mukk lu li ko neex te kuy ñëw di la wax saa su ne lu la neex régulièrement xamal kooku mooy wër sa première noonu bu yeboo nga teg ko ndax kooku moo lay dugal ci ndëgg sërëx moo lay dugal ci loo xamante ni ëllëg dootoo ci mën a génn eh, il est préférable nga jege ñi nga xamante ni bu dëgg jotee ñu wax la ko te duñ ci am mukk arrière pensée c'est très important mu gën a sellal li muy def gën a gëstu ndax temps bi xaarut kenn te jamono ji day dox te chaque jour mise à jour da am solo gëstu bi lu am solo la c'est très important xam ne mission bi dafa universelle te Serigne Sall dinañ koy dans le monde ba tax na lu bu ma ko doon soñ loolu laa koy soñ te moom laay soñ sama bopp allah. am na solo baax a baax mais tey damay profité ci occasion bi am ndax Pape Mboup bu Cheikh Béthio génnee na ñaari son yu am solo ba noppi clip ko album sax nga génnee album de douze titres yi nga xam ne wax dëgg yàlla du ñàkk ñu waxtaan ci tey. waaye li nga xam ne aussi du ma ko bañ a du ma bañ ñu waxtaanee ci muy ñaari clip yi nga xam ne génnee nga ko muy investissement bi nga ci ngir màggal gi loole lan nga ma ci mën a màggal daal sëriñ bi dañu woon képp goo xamante ni sama mbégte mooy sa mbégte la bu bés bi dellu seede nag ma ci sant la yàlla li ko dalee ci ginaar ba ci gileem loolu lépp lan la ci jublu bégtey bég la way yi nii way sëriñ bi ñun am nañ dañuy jëf sunu nag ba noppi jëf bernde bernde jaam ñi waaye nag ci li nga xamante moom la ñu suñu borom dénk muy baat danañ dugg studio woy ci sëriñ bi ngir bëggal ci bëggal ci soppe ndax loolooy gunge màggal gi bokk na ci liy taaral màggal bokk na ci liy neexal màggal gi man nag ku yokkul yaa wàññi te man man man li may prôné mooy excellence ku def li ñëpp yi def yaa ñëpp yam yaakaar naa album douze hits du ma ne kenn defagu ko waaye bëreegul ñu ko def ci sama génération ñun nag dañuy fekk lu kenn laalu ñu laal ñaari clip mooy de mooy d'une semaine loolu yombul ndimbalu sëriñ be mais xam nga lu ci neex Moussa mooy maa ko def samay propre moyen mooy wane ni man li may liggéey moo ngi may dundal dama ko maa ngi ciy liggéey sëriñ bi di ma ci teral ma di ci jël di ci investir ndax bëgg naa yóbbu mbir mi fu ko kenn yóbbu ndax sëriñ Saali ak compam réeru buur la te fu ci waayam yaa ci yemale sa bopp. si nuyu nañ la. maa ngi leen fay. Eh, tey kontaan nga de. naa macha allah. ñëwaatal ñu tuuti ci bés bi organisation bi ak euh, ni mu amee solo nii. macha allah sant rek sant Serigne Touba rek organisation bi waa Cine Pastef la. macha allah taxaw lañ bés bi waaye nii rek la mën a demee tawféex moom yàlla mën na koo dimbali. Ah, Tawfekh gis nañ ko euh, saa su nekk ci euh, aar bi mu ngi def lu mu mën yow ban taxawaay nga am ci wetam. ah xanaa jàppale ko rek soutenir ko xam ne lii sant cant la cant sant daal xam ne yàlla moo dogal daal te lii. cër nit te ñuy ñaan cër bi yàgg lool macha allah di ñaan mu yokk ca kaw ca kanam yàlla lafal ko cat mu sol ko ci barke sëy ak artiste yomb méttiwul nag macha allah. lan moo la ci gën a sonal. sama bos moom wax fa dëgg dara méttiwu ci. waaw macha allah. lan moo la gën a sonal ci ci kii ay appel yi la wala visite yi wala lan. du appel xanaa programme dem lu bari rek. waaw. ba sa mu toog. waaw ah nooy mu yokk mais des daal programme day tegloo moom ba damay mer. mais ku wax aar aussi wax concurrence gis nañu ne euh, domaine bi bëri nay concurrence euh, yaa ngi seetlu loolu. waaw mais moom. mën naa ni sax concurrence ndax man gisuma ko mu concurrence moom seen kër rek moo ko ñor ay waajuram soxnaam ay doomam fameem kase moo ko ñor moom chaque jour mi ngi xente woon nu mu def ba seen kër avancé nu mu def ba waa këram di lekk lu neex namuñu dara macha allah njabootam yëpp njabootam njabootu ñëpp la yamale moom daal na fexe ba kërëm macha allah ku fi dugg doo ko yab jaboot jabaram tamit du namm dara loolu moom loolu lay xente woo xam nga mën ngaa concurrence nii di defante di jaay neex jaxasoog yow mun a laa xeeb mais jabar yor na jabaram yor na ay doomam macha allah. Euh, ban ban message nga koy euh, jox moom bu dee da koy conseillé ak euh, soppe yi nga xam ne ñoo koy topp. mu gën a yokk oyofam rek soppe jigéen mënut a ñàkk ndax Serigne Saliou lañ bëgg te Serigne Saliou lay way te Serigne Saliou ñëpp ko bëgg góor jigéen loolu mënul ñàkk waaw moom xam na fi muy teg tànkam baa xam na mooy kan waaw. bu bañ a topp yenn yi quoi continuer yoon. waaw moom mi ngi ci yoonam macha allah yal na ko yàlla fal cat ba mu bañ cee wàcc te musal ko ci seytaan ndax seytaan daa bari doole. fàttaliwaat ñu tur bi. Roqaya la waaw. première dame wala deuxième. première <laughs>